الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di ko dimbandiku ñu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg budul yàlla moom rekk buur mooy buur bi nga xam ne kenn folu ko kenn mënu koo folli ak nguuram doon neewul ko ci askan du caa gën meen moom rekk mooy buur ku dégg baatu buur lu mu tuuti tuuti yaa ngi ko jëlee ci borom bi tabaraka wa taala te balaa yàgg dana ko nanguwaat ci yow nga delluwaat xam ne doo woon buur mukk kon yow borom bi tabaraka wa taala ta ñu ngi lay màggal di la seedeel di la nangul itam sa nguur ñu ngi julli di sëlmal ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallama muhammad ibni abdillah mi nga xam ne mooy sang wuy njëkk ak wuy mujj borom bi tabaraka wa taala jox na ko loo xam ne ëmb na texeeg jaam ñi tey ak ëllëg ànd ak moom texe rek dugg aljanna ñàkk ànd ak moom ak koo mën a doon ak loo mën a yore doo dugg aljanna yàlla nañu yàlla musal ci ñu mujj ñi te booluñ ci njëkk ñi nga xam ne dañuy ànd topp yu yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba keroog muy dugg aljanna incha allah ñu bokk moom dugg aljanna loolu yàlla ñu ko yàlla defal waay suñu xutba tey incha allahu dañu tànn benn baat bu ñuy tuddee lislaam xam naa ne euh, lañ ca bëgg dëgg-dëgg du yomb waaye nag dinañ ci indi benn joxañ damay wax ne Sénégal ñi fi gën a sonn fi ne mooy ñi nga xam ne seeni xutba dañ koy bëgg bëgg a li ñu tudd alwaaqi muy actualité da ngay dem waaj ba pare am leneen lu ñëw sarfu la nga tourné ku nekk xam na ne li ñuy tuddee alkafaala wala riaayat muy parrainage bi ak ni mu doyee waar waroon nañ ciy wax waaye incha allah comme gis nañ ne ñu ngi dëgmal ay élection loola jarul yàkkamte incha allah dana ñëw tey ñu jëloon kon benn baat di lislaam bëgg ci tontu ay tontu ak i laaj yu baree bari yoo xam ni dañoo seetlu suñu njiitu réew mi depuis 2012 ba tey da ngeen di seetlu ci maxaafil yi muy cérémonie yi muy dem da ngeen di dégg lu bëree bëri mu naan suñu lislaam ji waaw suñu lislaam ji nañ ñu ko fi bàyyil gërëm nañ suñu lislaam ji di ko wax di ko waxaat di ko wax di ko waxaat ba semaine bii ñu weesu léegi nag loolu moom lañ bëgg indi tey benn taxaw seetlu lan mooy lislaam waaye ndax moom ak ñi dul moom dañ gërëm beneen lislaam bu bokk ak bi yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallama walla déet mbokki jullit yi lislaam buñ ko waxoon rekk yem ci mooy al istislaamu lillah mooy da ngay jébbulul yàlla loolu moo tax jébbulu kenn rekk moo ko moom muy borom bi wa taala moom lañuy ñuy jébbulul ci wommatul ko ci def ay ndigleem bàyyi ay tereem waaye mokk ci ronam mokk ci kanamam waaye itam ci kanam yi ay ndigalam diine lislaam moom rek la yàlla reconnaître comme diine inna diina inda allahi l islaam mu tegaat ci ne wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min alxaasirin moo ci gën a doy waar képp kuy jéem a sàkku leneen lu dul lislaam comme diina yàlla du la ko nangul te soo ci naf-nafee ba dee keroog àllaaxira borom bi tabaraka wa taala ne na da ngay mooy diina ji nga xam ne moom la ibrahima dénkoon ak njabootam yaquuba itam moom la dénkoon ak njabootam inna allaha stafa lakum diin fala tamuutunna illa wa antum muslimun borom bi tabaraka wa taala di wax ak jullit ñi di wax ak jaam ñi am kuntum shuhadaa ndax da ngeen a fekkee woon ndax tee ngeen id xadara yaquba mawt yaquba keroog ba mu demee ba dee ñëwal ko id qaala li lan la waxoon ay doomam maa taabuduuna min yi sama gannaaw lu ngeen di jaamu fekk yar ba mat na ci ñoom ñu ne ko naabudu ilahak sa yàlla ji la ñuy jaamu te muy jenn yàlla ji wa ilaaha aabaika ibrahim yàllaay sa baay ya te ibrahimaa ci jiitu wa ismail wa isxaaq ilaahan waaxida benn buur ba la ñuy jaamu wa naxnu lahu muslimuun <clears throat> ci gannaawam bi yeneenu xeet ñëwee di askanoo ci moom te seeni mbir ñu tuddee ko leneen borom bi tabaaraka wa taala ne déedéet ibrahima kay maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya duwuloon yahud du nasaraan walakin kaana xaniifa dafa bàyyi woon lépp jubli ci yàlla rekk musliman jébbulul ba bi tabaraka wa taala nekkub jullit wa maa kaana min al mushrikin yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla jox diine jii nga xam ne tey moom la ñuy jaamoo yàlla te ñu junjoon ne borom bi tabaraka wa taala du nangu jenn diine ju du diine lislaam ji ba muy woote di jàngale di woote di jàngale ba ca ajam gu mujj ga su la neexee danga ne benn aj boobu la aj sax ci lislaam mooy xajjatul wadaa taxaw ca arafa bésub arafa ca jabalu arafa sallallahu alayhi wa sallama ca xutbaam gu siiw gu màgg gu rëy googa bokk na ca lam leen waxoon te aaya ba wàccoon bésub keroog mooy al yawma akmaltu lakum diinakum bis ni ki tey na xam ne seen diine ji mat na alkamaaliya alshumuliya walwaaqiiya wa atmamtu aleykum niamati xéewal gi moo doon joxe mottalee naa ko ci yéen waaye lan la ca tegati wa raditu lakum lislaama diina kerak ndeysaan abu bakrin siddiq siddiqu haadihi l umma radiallahu taala anhu dal di jooy omar ñëw ne ko waaw sëñ bi jooy yow daal nga xaw a doy waar mu ne ko ah yàlla kat li mu wax mooy mat na mbir nag su matee lan moo ciy topp mbokki jullit yi ci anam gu xaw a gaaw tuuti jaafar ibnu abi taalib radiallahu taala anhu jaafar tayaar bokk ci ñi nga xam ne yonent bi salallahu alayhi wa wala boog dañ ko doon tuddee sax kenn ci ndawi lislaam yi nga xam ni dañ leen a yónni woon wala ñu dem war a taxawee taxawaayu lislaam ci anam gu mat sëkk gàddaayu ñaareel ga ca xabasa ba ñu demee ba àgg war a rawale seen pas-pas ak seen diina mbokki jullit yi gis nga diine lislaam wallahi ku ko yàlla xéewale nga jàppati ne am na xéewal bu tolloog moom wala bu ko féetee kaw yow xamoo lan muy diine lislaam loolu moo tax lislaam ci intégralité bi jël ko te doo ci wàññi dara doo ko booleeg dara amul lum jarul loolu moo tax ma ne ñu indi rekk benn taxawaay boo xam ne danañ wane lislaam bi yàlla wàcce woon ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ñun suñu lislaam ñun su boobaa danañ xam ndax am na ñaari lislaam wala benn la wala boog benn lislaam bi la ñun daa am luñ ci jël te am luñ ci bàyyi te boroom tabaraka wa taala xam nañ ne lislaam bi laa yaqbalu tajsi'a afa tu'minuuna bi ba'dil kitaabi wa takfuruuna bi ba'd jaafara ngi dem na ànd ak sahaaba ridwanullahi alayhim ajmain loolu moo tax gis nga Afrique bërëb bu jar a bàyyi xel la keroog bi yàlla yónne yonent bi sallallahu alayhi wa ca golfu ba ñuy xeex lislaam saxaaba yi ñu dawee ridwanullahi alayhim ajmain fan lañ jubal si Afrique ci bërëb bu ñuy tuddee alxabasa ñu koy tuddee tey Éthiopie capitale bi di Addis Abeba ba ñu ñëwee ñu ngi fa fekkoon buur bu ñu doon tuddee asxamatu najaasi radiyallahu anhu mujj na tuub ba bi mu faatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julee na ko moom ak saxaaba yi salaatul ghaib bi li ci aju ci ay duruus dafa bari lool loolu moo tax yooyee danañ ko bàyyi rek ñëw ci li nga xam ne moo ñu gën a yittil ba ñu ñëwee mu fat leen waa Màkka dañoo yebal beneen délégation ne ñooñu kat ñi fat dañ leen a war a génne dàq leen ñu dellu si ci ñun benn ñu daw jëm feneen wala ñu rey leen rekk ba ñuy ñëw nag indiwaale nañu ay kado yu baree bare buur bi dal di leen woo woo ñi li nga xam ne ne nañ seeni mbokk lañ war leen a laaj lan moo tax yéen ngeen daw tey ñëw fii ba mu leen laajee jaafar radiallahu taala anhu moo tontu ngir xamal kooku waaye àdduna yépp diine ji nga xam ne moom la yàlla yónni yonentu bi sallallahu alayhi wa bokk na ci lam ko mooy ayyuhal malik ñun dey aw nitu ceddo lañ woon wu réer doon jaamu ay xërëm doon lekk médd doon def lu bon di daggi mbokk di ñaawal jëm ci suñuy dëkkandoor yakulul qawiyu min ad-da'if ñi ëppoon doole dañ doon not ñu néew doole dañ leen da dañ leen sax doon lekk ci loolu lañ nekkoon mu metti lool ba yàlla yónni kenn ci ñun kok ku ñu xam la xam nañ as askanam xam nañ ne ku dëggu la waaye itam ku amoon wëllëre la yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam laata ñu koy yónni moom lañ tuddee woon muhammadul muhammadul amin kon ñoom xamoon nañ ko <coughs> xamoon ne ku fegu la mu wooñu ci jaamu yàlla gis nga woo bam ñu woo du intérêt sàmba wala démba déet ñépp ci bokk allah naabuda illa allah wala nushrika bihi shay'a ngir lan ñu jaamu borom bi tabaraka wa taala waaye buddi ko bàyyi lépp lu ñu doon jaamu ñun ak suñ bàyya moo xam ay doj la moo xam ay xërëm la waaye digal ñu ne nañuy rafetal ci suñu dëkkandoor ne ñu bàyyi moytu yu xaraam ya bu ñuy tuur deret tere ñu tere ñu ci gàttal bari na lool diggal ne nañu jaamu yàlla tabaraka wa taala wéetal ko gis nga ba ñu waxee lool ba sottal asxama radiallahu taala anhu nee ñu daa jooy ba sikkiñ bi tooy ña ko waroon ay boromi xam-xam te xamoon lañu ñu yónnee woon ca ñoom démb dañoo jooy ba mënatuñuy téye seen bopp nee ñu boobu mu ngi yore benn dokk nii mu daldi rëdd ne maa ngi waat ci yàlla ne isa lam indi woon ak li ngeen ma wax ne seen waa yi moom la indi lu mel ni rëdd bii doxul seen diggante muy jàmm yàlla te wéetal ko kon suñ bëggoon a gàttal ci anamu ko gàtt trop mooy daañ wax ni lislaam a ngi noonu léegi nag lislaam ndax ñaar la ba tax ñun ñuy gërëm suñu lislaam di bañ kenn di ñu indil beneen lislaam mbokk julli ndax lislaam fii la bàyyee ko ndax yàlla daa mos a yónni kenn koo xam ne ci territoire senegaal bii la dëkk ku sant nangam wala ko tudd diw ndax loolu mos naa am ndax am na kenn ku yàlla wàcce benn aaya ci moom ci ku dëkk Sénégal lislaam fan la ko ca jasiratul arab kan lañ ko yónni yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muy jàngale di woote ba lislaam boobu yegsi fii boobu mooy nag lislaam d'Allah gis nga tubaab yi ni ñu bëgg a naxee loolu daa àgg ci ñu ñu yar ba ñu jàpp ne ñoom loolu daa war a am réalité la ba dag naa dégg ñu naan l'islam de France l'islam d'Europe l'islam d'Amérique léegi ñëw nañ ci l'islam d'Afrique danañ ko xaajaat nag ci lislaam de senegaal loolu benn jullit wóoru koo nangu saa wu ñu nangoo pour ñu xaajal ñu lislaam ñu ngi bëgg a am lislaam boo xam ne nii l'islam bu manqué la mbokki jullit yi ndax dañuy gërëm lislaam boo xam ne amul attewoo chariatul islam l'islaamu senegaal bii ndax tey li ñuy àtte sharia la macha allah jàkka ji li fi teew ci fuqaha kenn xamul nu mu toll buntu fiq yëpp jàng ngeen ko tafsir ngeen li ñu war a jàng yëpp ci lislam jàng ngeen ko waaye da ngeen ko jàng dal di ko jël teg ko du ngeen ko àtte woo ndax lislaam daa war a am lislaam boo xam ne du am àtte woo shariatul islaam ci dëkk boo xam ne ña fa ëpp depuis quatre-vingt la ñu wax ne Sénégal ñi fi eewoo quatre-vingt-quinze pour cent yi ay julli lañ ma ne ak léegi yokkuñ ko nag waroon nañ ko mën a yokk ndax julli ñaa ngi yokku nag te borom bi tabaraka wa taala noonu nañu fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fii ma shajara baynahum wallahi maa ngi koy waat ne duñ gëm lu dul ne dañ laa àtte woo lépp lu dox seen diggante suñu lislaamu Sénégal bii de ñu ngi koy gërëm de waaye ndax am na attewoo attewoo sharia lislaam bii ci Sénégal wala réew mii di senegaal ay jullit di fi dëkk di fi dundee mbaadu ñoom lu waaye ñuy attewoo dañ koo jëggaanee ci ñoo xam ne gëmuñ yàlla ahankay yàlla ne na yaa ayuha alladina amanu laa tattaxidu alyahuuda wa nasara awliya baaduhum awliyaau baad ca biir aaya ba ba muy jeexee ji mu ne ma ne tawallahu minkum fa innahu minhum yëg leen ne yéen jullit ñi képp ku ci dem méngoog ña gëmul bàyyil xel ni yow yow gëmatu ma ne kon ñun bu fekkee dañoo am suñu lislaam war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax mbokki jullit yi ndax ñun dañuy gërëm ahankay war nañ mën a gërëm su fekkee ne dañuy jël lu matul war nañ mën a gërëm askanu lislaam wallaw jullit woo xam ne ne nañ seen lislaam ba ka leen jiite nekk jullit comme ñoom ma waxaat ko ay jullit yoo xam ne ne nañ seen lislaam ba ka leen jiite jullit la comme ñoom rafetalut wasalaatu wasalaam ala ashraf al anbiyaai wa ashraf al lañ gërëm xam ne seen njiit bu taxawee au lieu que na ala ashraf al waaye gis nga ala ashraf al mustaqim lislaam boobu moom manis na koo gërëm mbokki jullit yi ndax dañuy gërëm lislaam boo xam ne li ñuy tuddee assemblée national ba ña fa ëpp ay jullit lañ ña leen fal ay jullit lañ assemblée boobu war a tëral ay loi ak i àtte yoo xam ne askanu ci lañ leen di àtte kooka ka ko jiite mokkalu sax innamal muminuuna ixwatun ba bu koy jàng da ngay dégg maa innamal muminuuna xiqwatun ñaa ñun kon lislaam boobu lañ gërëm lislaam boo xam ne danga xool ca kilifa ya nga tànn ci rek kenn te encore ab ministre ni mu amee solo ci réew buy wax ak beneen naataangoom di sànniwanteeg moom ay kàddu ne day jël alquran pour tegtaloo ko te mot mokkalul fa man yaamal misqaala darratin xayran yara nga xam ne xale yi di door a am juróom mbenni at juróomi at sax boo leen tëli luwe fa man amal misqaala darratin xayran yara ñu tëli ko waaye ministre boobu mokkalu ko amaan na ñun kon lislaam boobu la ñuy gërëm ay yow suñ jiitu réew ndax dañuy gërëm lislaam boo xam ne kenn ca ministre ya muy kii may wax nii bàyyeekoo na fi Sénégal ci anam goo xam ne ñun ñépp suñu dërëm a ca dem mu jëlee fii avion dem Israël ci xaayitul mabaka muy mir de lamanta ñu gis ko mu sol mbaxana ba juif yay sol taxaw ca miir ba di ñaan ak jooy ah kon ñun lislaam boobu lañ gërëm lislaam boo xam ni boo doon xool askan wi ñépp ay turi jullit lañ yor waaye mënoo leen a xàmmee askan woo xam ni gëmuñ yàlla ci colka ga ci pas yu bare bari waaye itam ci jëflante ga jëflante yu bare bari tey sooy natt jullit gi da nga dem ba ca biir nga ne waaw kii ma doon jëflanteel kan la ah ñun kon lislaam googu moom lañ gërëm lislaam goo xam ne ña jiite réew ma siblewuñ ñenn di leen somb ci kase lu dul ay imaam ak sëriñ daara depuis depuis 2012 ak tey li ñu téye ci sëriñ daara ak imaam ba Sénégal Sénégal ba tey mosul am mosul am waaye sénégalais de lambda bi liñ ci tëj depuis boobaak léegi ñaata lañ fi mu ne millier de milliers ñu ngi ci kaso gi te amul kenn koo ciy xool au fond fekke def na dara ah l'islam bii moom waresta cee man a d'accord parce que l'islam bi dafa wuteeg l'islam ba jaafar doon wax ne moo taxoon ñu yónni yonente yàlla muhammadin moo alayhi wa sallam mooy yakulu fiina alqawiyu min na daif lislaam boo xam ne atte ba atte ba ay ñawkat leen jël ñu koy ñaw di ko soppi comme nam leen neexee su leen neexee tey mbubb mi yaatu lool su leen neexee tey mbubb mi xat lool waaye lislaam boobu day warees na ko warees na koo mën a gërëm ndax matul ndax dañuy gërëm ci lislaam goo xam ne askan wa comme ni ñu ko waxee ñi ci ëpp ay jullit lañ sàngara gaa ngi ne xas ci mbedd mi carte gaa ngi ne xas ci mbedd mi ngóor jigéen gi bàyyi leen xel ne ñu ngi ci doon wax ah bu yàlla deful sutura dana gën a ñëwaat ndax yëg ngeen ni bàyyi Sénégal comme ni mu ko waxee bàyyi Sénégal muy France seen premier ministre bu bees bii bu sax lu ko nit waxal moom daa taxaw déclaré ko ne moom ak lootii la parce que tur yi sax xaw naa ko wursa tudd ci kaw minbar bi mu ne moom loolu ñu gis ca gouvernement France ab ministre boo xam ne moom tubaarkàlla te ñooñu fi mu ne ñoo sapp Sénégal moo tax élection yi di ñëw nii élection yi spéciale la ci Sénégal incha allah danañ ci ñëw daan na am élection de mais yii yu jar a bàyyi xel la moo tax askan yi war nañ jóg fagaruwaat wane ko ci fulla gu mat sëkk su fekkee ay julli lañ li ñuy woote woo gëm ko taxaw ne ñun de lii lañ bëgg waaye bëgguñ lii am na lool su fi amee boo wàttuwul la am France ak yeneen i dëkk yu bari ca biir jàkka ya imaam lañuy taxaw di leen takkaloo sëy ngóor jigéen yàlla insha allah musal kon yow suñu njiitu réew ñu ngi lay xamal ne lislaam gi nekk senegaal matul de ak a manqué lislaam la goo xam ne turwaan fi jëmmu jàng fi waaye bët yi bënn na tànk yaa ngi waaye dagg nañ ko lislaam a ngi fi tey waaye mënul dara bër ki démboo njaay yéen a ngi dégg benn soxna su def benn vidéo yéen sëñ daara yi amul lum leen waxul ñi gën ñu gën ci askan wi mooy ñu jàng alquran te di ko jàngale ndax loolu sama wax la xayrukum man taallama alqurana wa allama mu wax leen ba wax leen loo xam ne wallahi ku ci sañoon dugg nga ci biir suuf si te mënu leen ci dara loolu tey buñ ko fi waxoon benn kilifa heure bii lan mooy xew ah boobu googu la ñuy gërëm wala in saaltahum la yaqulunna innama kunna naxudu wa nalab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun mën nañ gërëm lislaam boobu te ñii ba ñuy wax seen wax ju ñaaw ja waxuñ yonent bi waxuñ alquran mais jàngkat alquran yi la ñu wax yàlla mer ba wàcc ci aaya boo xam ne yuqra ila yawmil qiyaama lu ngeen ci man am na ñu dem tribunal waaye du mujj fen lu tax mooy dañuy dund liberté d'expression te ñun ñoo ko wote nit ki libre na ci lu ko neex wax comme wax na loolu nag amul benn jafe-jafe waaye wallahi am na ñoo xam ne tey buñ ko raay raayal wax jooju tey suñ ko jëmee woon ci ki jiite réew mi balaa une heure barkal temps waaye nag niñ ko jiite ñooy sang ci askan wi ku judd ñooy njëkk ci yow ku dee ñooy mujj ci yow waaye nag ñoom lañ gën a marginaliser marginaliser ci réew mi daanaka ñoom tekkuñ fi dara nañ toog ci seen ruq ya ba àjjuma jotee ñëw sarax leen ñaari sondeel ak ak ab ab këyit weex ah kon lislaam googu leen gërëm ah lislaam gii dey bokkul woon ak lislaam ma wàccoon ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi muhammad dey lislaam ma yàlla wàcce woon ci moom moo ko yilifoon moom ak i taalibeem doon leen at mosuñ dëkk menn Babacar wala Omar wala kenn ci saxaaba yi ne ko gëm naa la topp naa la waaye nag wàllu àtte ñun moom dañuy dem ci dégool wala sàmba wala demb mu àtte loolu mos ngeen koo dégg afa xukumal jaahiliyati yabxuun kon yow suñu njiitu réew ñu ngi lay woowaat ne lislaam bi nekk Sénégal buñ ko gërëm de lislaam bi am na lu ci manqué ñi ko xam nag moom ñu ngi fi alhamdulilah sëriñ saa fi imaam yaa fi sëñ daara yaa ngi fi duñ jeex waaye nag ndax lislaam boobu ñu ngi koy appliqué wala déet te dafa jar di bàyyi xel bu baax a baax koo xam ne askan wi dañ laa fal am ay besoin yoo leen war a fajal waaye taxaw ca ci càcc geeg nangam ak nàngam ak nangam waaye nag ñàkkaa taxaw ci loolu wala ñàkk caa man lu bari bëgg a taxaw di boole askan wi xam nga wallahi mbir mu doy waar la ku jiite réew premier personnalité ci réew mi su ñu demee ba dégg mu diine ji ñu fi am wala yéen dëkk sàngam bu keneen ñëwee bàyyeekoo ci biti di wax leneen balaa muy pare toj leen kaabaabam lu jar a bàyyi xel la yàlla nañu yàlla delloosi si ci xasiratul islaam yàlla nañu yàlla wanaat ñu xam ne lislaam rekk ay dëgg ñu jàpp ci lislaam na ca ŋaciw ah suñ mag ñi day coono bi ñu sonn yëpp ñu ci sonn moo leen taxoon a sonn waaw moo leen taxoon a sonn de ba keroog péncum yàlla itam képp koo xam ne jël nga lislaam ca na ko war a jëlee wala nga koy jéem bàyyil xel ne da nga sonn bada al islaamu gis nga bada al islaamu gariba wa sa yaudu kama bada waaye nag fa tuuba lil guraba allahumma la aysha illa ayshu l axira lii la saxaaba yi doon wéy de dund du fii fële la ku doon xool bilaal ak ammaar liñ doon daj ak ñi mel ni ñoom xetti woon na trop waxuma sax ci yaram waaye yow mi koy nettali yenn saa yi nga dem ba mu yàgg da nga sa bopp ana ñoom dem nañ depuis junni at ak nàngam ñi leen doon mbugal te ñoom tuubuñu woon ana ñoom itam dem nañ depuis junni at ak nàngam boo doon xool ñoom ñaar ñii suñ la waxoon kan ngay ñee ci ñoom kan ngay ñee allahuma aiz al islaam wal muslimin allahuma aiz al islaam wal muslimin wa adill al shirk wal mushrikin allahuma damir aadaaka aadaa diin عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله قل ما عند الله خير من اللهو